non parce que koñ moom xam nga moom boo fi nekkee di def ay teranga baax gëm sa bopp mën a liggéey am teranga du ñàkk ñu lay waxtaane dama fi miinul nag xam nga li may génn du bëri moo tax li may génn du bëri parfois nii rek occasionnellement doo dégg Ibou le banquier non non ok xam naa li nga dul génn la nag dëgg la kay voilà man banquier quoi fekk kër gi suma kër la maa ko moom car macha allah xam nga dama nekk xale teel a sotti voilà mm, nekk xale teel a sotti jéemal nañ ma lu ne nag fexeel nañ ma lu ne waaye boo nekkee xale teel a sotti mm-hmm. am gàllaaj am mm-hmm. téere mm-hmm. macha allah kenn du mën ci yow dara te xam nga lii dama koy bëgg man dama bëgg xale bu civilisé mm, xale bu mën a king mais Ndeye Fatou sa téléphone moom moo ko ah. gisuma ma lii dafa non non kii rek bàyyi téléphone bi ci biir. ak lu mën a am su ma lay woo yow appel yi ma la woo yow mënoo wax yore woo sa téléphone fu ñu la fekk yaa ngi sinap di whatsapp yaa ngi may dégg su ma lay woo sama sa téléphone. xam nga ne man heure boo ma wooyee dama lay wuyu. mais xam nga yow weer bi fan la toll bi mooy bu weer bi dee deux mois yoo xamante ni fayoo ma ko di ma ma lay woo jëlal sa téléphone lu ma gën a bañ. waaw mais nag du nii parce que déjà du nii nga ma koy laajee ci mbedd bi. yaa ngi dégg yaa sa bopp. am na yoo xam ne nag sutura da ciy baax du nii mënoon nga ma bàyyi sax nga fekk ma ci biir kër gi bañ naa ko xam ni fekke woo ko moo tax ba ma ñëwee sax nuyu ma la ah, waaw non déglu ma rek waxuma ak yow waxuma ak yow omo lu may wax ak yow xam la laa bëgg nga lijjantil ma sama xaalis nga jox ma ko parce que fii location la dañuy fay man damay verser borom kër gi bugguma benn problème non non non non non musul mais tardé na bi pas tardé na mais xam nga xam eh, location dafa am ay normes mhm. de location dafa am ay normes mhm. li nga def nii yaa ngi def lu garaaw te xamoo ko yoon buñ la ci toppee mën nga am problème nit kenn du ko laaj location ci mbedd en plus tey la kañ tey la huit ngay sonal nit ñi. mais frère qui te prend pour qui. la vérité non dama lay laaj qui yow bañ naa ko ban laaju ma la waxuma ak yow. tey ah, moom da nga ñàkk mais sa problème yow. yow moom yaa may wax ay yaa may wax ay ordre yu may laajee suma location. dama laa bëgg a xam jéemuma laa sax xam. jéemuma la saxam wala da nga koy fay bu dee da koy fay nga fay ko moo gën wax ji ok yow laa waxal nag. ma wax ji na jeex rek ñu régler situation bi. ok jox ma sa compte bancaire. Ah, ma defal la virement rapidement. waaw kay eh, man yoruma compte bancaire. voilà. yow nooy nekk ci dëkk bi di fayee ko ay location te compte sax amoo ko gis nga Sénégal lii moo tax du développé. naka ngay liggéey te amoo compte. di jël sa conserver di denc mën a def ay investissement yu wóor. Hmm. Hein? Hmm. la a defal virement ba wis la instant bi parce que su ci yor ci yor bi day hein? donc da ngay compte bancaire euh, boo ñëwaatee bu la numéro bi rek nga ma numéro bi ma defal virement cinq mois de location parce que c'est honteux. déggal hein? waaw mi ngi noonu da ñàkk sutura rek. ay ca gorgar ngi nii. waaw léegi. gorgar mi ngay wax yëpp amoo sax. d'accord compte amoo dara. merci beaucoup. tey nag dala koy fay nii ci ba muy bëri doole. baax na xam laa bëgg nga xam ko man damay jël pound damay jël maawul man ba na doon xaalis rek damay jël pound bañu ma ko damay jël pound. non mais est-ce que bi ngeen di waxaale pour. nga loué ko loolu ngeen waxante woon fii parce que lépp ça dépend ci contrat bi bu fekkee waxante wu leen jokkalante ay pound nag euro problème mën na am. déggoo ma de amul benn problème loolu contrat bi loolu amu ci na ma fay rek voilà. man pound chèque laa yor quoi xam naa après. ñu xool gis nga genre bii nii gis nga genre bii. lii nii nga mën a am ci ñoom bu fekkee nag yéen da a nekk ay nit ñoo xamante ne ay wax moo leen di góndi da ngay nax dëgg may déglu ma rek ki boko xolé xoolee yorut sax lu suukar warga lu ya ma dàq fen yow nga ma ya ma na fen danga yaa dem nih la nga ma a ni ngeen def dina wax sax moy bëgg bari xam nga laa bëgg yow déglu ma fii yow xam nga laa bëgg do teud ci dal daal tafayama suma xaliss ah. duma la wax dara nak waaye ki mom tay nu mel nii ki mom tay mom ñu win ah mo tang tay ah lii lan la ni ah sax ay liggéey de toute façon après man dinaa am lu la jox ah. Ibu Ibou waaye di nga de non non non non non non waaye di nga de munuma chaque jour ma lay dëkk di la suturaal Ibou yow tey lan moo tax ñëwoo sa ba lan moo tax ñëwoo sànce ba Ibou eh, yow eh, wuy ma wuy ma xoolal après ñu déggante doom day dégg nga dina ma expliqué la ah, ah, dinaa la woo après ah, xoolal ñoo taxawal yow doo expliqué ba wóor naa la doo expliqué kaay mu wax la affaire la kaay mu wax la barka alxuraan kaay sama gaay ma maa ngi ñëw dégg change bancaire waaye booy wax ma lay